billaahi wal quraanil xasim Macky Sall deret ju baree bare nam naa tuur fii Sénégal te moo ngi nar a amee ci sababu bëgg-bëgg président Macky Sall te moo di troisième mandat. troisième maanaam lu tuuti rek mu di ko xëppoo mu di ko xëccoo maanaam aw askanam xam nga ne kon kooku amul kenn benn yërmande ba àgg bay tiile ay bal réel ay bal réel yoo xamante ne si yow ñii seen borom ñii seen alal rek saan la ñuy sàmm nga àgg di leen tiile maanaam ay bal réel. maanaam ngir faat leen xam nga loolu dafa doy waar ba jéggi dayoo waxuma la ki faatu sax waaye ñi ci gaañu nga xam ne seen i cër nopp naa baaxat ci àdduna kenn xamul nu toll procès politique rek la hmm. duma ci sax sawar di wax mook diggante procès euh, Seydina Ousmane ak ndaw soosu hmm. daanaka du bëgg di jaar seen i tur ñoom hmm. ndax da lay wóor ni wóoru yàlla kii jàkkaarloo ak man di ma seetaan bu waxalee te yàlla rek tax da koy wóor ni procès bi maanaam yemut ci diggante Ousmane ak mbay ñaan déedéet. am na da lay wóor ne am na lu ci nekk ndaxte jii ci misaal mbay ñaan daf lay leer ni moo la gën a xam ni dafa sàcc te rapport am na ñëpp ñëpp taxaw ni ko da nga sàcc waxul dara Ousmane moo mu jëggéen ni ko da sàcc mu ne ko nag sàcc naa de dëgg la waaye ni nga wax ni noon laa sàcce sàccewu ma noonu. Mm-hmm. loolu foo ko mës a gis. asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, tey nag ñu ngi fii nii ci kër Serigne Abo Diop Serigne Abo Diop nag euh, xëy na du jar présentation bi du euh, yàgg ndax ku nekk xam na ko ci biir réew mi kan mooy Serigne Abo Diop moom nag mu bokk ci kër Serigne Massamba Diop Sam Serigne Massamba Diop Sam nag bu ñu waxee di mag moo xamante ne bii dafa bokkoon ci mag ñi toppoon Serigne Touba bokk ci keppaar gi nga xamante ne bii da daan nekk ci kër Serigne tubaa xaarim Rasool moom nag bokk na ci sëti Serigne Massamba Diop Sam yooyu. waaye it bu ñu waxee Serigne Abo Diop ñu ràññee ab waaye bi nga xamante ne bii amee na ko ci biir réew mi ci yi nga xamante ne bii mooy actualité yi nga xamante ne bii mi xew waaye kan mooy Serigne Abo Diop moom it bu ñu ko waxee xam ngeen ne Serigne Abo Diop euh, di koo xamante ne yàlla may na ko ci wàllum xam loo xamante ne bii néew na amul ko ko xam ci réew mi waaye néew na nga gis xam-xam bi mu làmboo bu set te civilisé bi nga xamante ne bii amee na ko moom Serigne Abo Diop nga gis koo xamante ne bii amee na ko fii ci biir réew mi kon sëñ Abo ginnaaw bi nga xamante ni bii nuyu nañ la ziar la fekk si la fii nii ñu ngi lay bàyyi kàddu gi nga nuyoo ba nu noppee nag ñu dugg ci li nga xamante ne bii eh, ginnaaw yàlla moo ñu fi tax a daje. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala haadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawir ridwani wa tamkin maa ngi nuyu mboolem jullit nuyoo ba gën a rafet te gën a yell te moo di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di am mbégte di la delloo nuyoo yow ak mboolem ñi nga àndal di sant bu baax ci jataayoo ak yéen ci seen site bu bi nga xamante ni si ni bu ma yàgg sopp la te moo di Yaatal Vision wax dëgg yàlla mu doon site boo xamante ni si ni lu baax rek lay jàllale te moo ngi yee ñu baree baree bari kon maa ngi am mbekk bu baax ci dalal leen fii ci sama kër ci Touba Mbacké di sant bu baax ci jataayoo ak yéen ndax sama jataayoo ak lenn rek moom moo di sabab bi te moo di li ma yàlla sédd ci xam-xam ma fas yéene dimbali képp koo xamee ni tànne naa la ca ndax ku nekk la yàlla def ci yow rek ci nga mën ne dimbale sa morom doomu aadama yi te duma dañ mukk di wax ni ñi ëpp ci doomu aadama yi dañuy faral di sonn lool. ndax fu nekk lañuy yaakaar xam-xam dema dem ba yegg fa fu ci bari lan fa doon yaakaar wuute lool ak lan fay fekk te ndegam yàlla sedd na ma ay xam-xam yoo xamee ni mën naa cee taxaw doomu aadama bi ba addunaam bépp baax lii warteef ci man moom moo di ma dimbali leen ci te xam ne bu ma ko defut responsabilité la boo xam bu ëllëgee dinaa ko la yokk saa borom subhaanahu te loolu moom moo di summa la tusalunna yawma isin ani nahim moo tax daal maa ngi leen di dalal fii ci sama kër dalalu mbégte ak fas yéene laabéré képp koo xamee ne tane naa la ci wàllu wi ma yàlla may bismillah ah, ok jërëjëf jërëjëf sëñ aboo Diop ci nuyoo bu sell bi nga xamante ne bii amee nga ko sëñ Abo Diop nag ñu miin ay kàddoom ci biir réew mi saa su waxee daanaka ñu si ëpp dañ koy bàyyee xel bu baax a baax a baax euh, kon nag sëñ Abo tey bu ñu ñëwee ba fii nii bala ñu dugg ak yow ci xam-xam bi dañuy bëgg a ñëw ak yow ci li nga xamante ne bii gis nañ ko ci fan yi muy euh, acte bi nga xamante ne amoon na ci diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane te li nga xamante ne bi mooy cour d'appel daal di wax ne Ousmane Sonko dañ koy daan li nga mooy juróom benn weer yoo xam ne du ko tëdd waaye euh, ñu bëri it di wax ne candidature Ousmane Sonko ci élection 2024 bi ñu dëgmal euh, du am loolu gis-gis ban ci am. Abdourahmane dama bëggoon nga may ma balaa may yegsi ci gis-gis boobu sax ni ma ko baaxoo di waxee fan yi ci samay jataay duma deñ mukk di massawu. mboolem gor yi nekk fii Sénégal te seeni wajur doonoon ay gor seeni ay maam doonoon ay gor te ñu yàgg xeex lool ngir tabax réewum Sénégal tabax sunu ay institution ak ay sunuy valeur ba ak sunuy droit ba tax na sax daanaka sunu réew bokkoon na ci réew yi nga xamante ne si boo daan génn ci biti bokk na ci liñ daan damoo maanaam pays de droit tey jii yooyu ñu daan sonn daan xeex lool tey jii wallahi yu ci baree baree bari mën naa ni nërmeelu na ci nguurug Macky Sall daanaka mën naa ni institution moom la dëkk bi feese dell sunu ay institution nërmeelu na état de droit bi ñu daan bàkkoo muy man ak yow ak ku mën a doon daanaka tey moom laneen la ñuy wax kon maa ngi masaw gor yi yàgg xeex lool loo lool ak seeni waajur ya nga xamante ne si ñoo xeex ba loolu amoon te tëj yi loolu lu ci baree baree bari naxasaaye ci Macky Sall ndax aw yorinam wu bon bu ma ñëwee ci question bi nga wax daanaka lu jëm ci euh, question muy Ousmane ak ku mel ni Mbaye Niang parce que du bëgg di wax maam Mbaye Niang du sama maam waaye daanaka procès politique rek la du ma ci sax sawar di wax mook diggante procès euh, Seydina Ousmane ak ndaw soosu daanaka duma bëgg di jaar seen i tur ñoom ndax da lay wóor ni wóoru yàlla kii jàkkaarloo ak man di ma seetaan bu waxalee te yàlla rek tax da koy wóor ni procès bi maanaam yëmut ci diggante Ousmane ak Mbaye Niang déedéet am na wóor ni am na lu ci nekk ndax tey jii ci misaal mbay nag daf lay leer ni moo la gën a xam ni dafa sàcc te rapport am na ñëpp ñëpp taxaw ni ko da nga sàcc waxul dara Ousmane moo mujj génn ni ko da sàcc mu ni ko nag sàcc naa de dëgg la waaye ni nga wax ni noonu laa sàcce sàccewu ma noonu mm-hmm. loolu foo ko mës a gis nga xamante ni tey jii yow danga waroon sax laqatu maanaam ngir dem ci yoon ngir boo demee dañ laa war a teg loxo mm. waaye tey jii nga am audace sàcc sunu xalal ba noppi dem ni da ngay porte plainte maanaam buur làqatu ci sa ginnaaw du ma ni sax buur parce que Macky Sall laay wax man jàppewu ma ko président ndax dafa wàcc maanaam rôle ban maanaam responsable bi ñu ko joxoon moom wàccee na wàccee na loolu boppam moo tax du ma ko jàppee sax président Macky Sall laay faral di wax Macky Sall nekk sa ginnaaw tey jii nga wëlbatiku ni dangay ngay laaj kii cent million yoon ànd ak loolu ca yow maanaam Macky Sall wëlbatikuwaat maanaam gis ni dafa parce que maanaam mënoon na ci jaare ngir maanaam fexe ba kii maanaam du poser candidature ci élection yi maanaam mun ne la da ngay defaat appel maanaam dangay ngay defaat recours nga nga ñëwaat ne da ngay laaj léegi presque un milliard la Mame Mbaye Niang doon laaj loolu loolu dafa jéggi dayo dafa jéggi dayoo ñu dem nag ci seen atte bi yaa ma neex ba teg ko ci juróom benn weer waaye ci gàttal rek maa ngi seeral yàlla ni la billahi wal quraanil xasim lu ñu mën a pexe ci teg ko Ousmane Sonko bu fekkente ne Ousmane Sonko bukkul fii ay élection fii Sénégal billahi lazi laa ilaha illa huwa élection présidentielle du fi am loolu man ma ma loolu ma ci xam-xam bu wér Abdourahmane gis nga man maay sëriñ bi fi njëkk a génn boobu mi ngi doon gàmm fukki fani gàmmu yi jiitu dama koy faral di def xalwatu keroog bi ma génnee dama leeral daan ni mboolem ñi yaakaar ni réew mi mën na baax ci Ousmane Sonko wala képp kuy patriote jugal taxaw ngir maanaam défendre ko parce que Macky la ak gàngooram seen yitte jëpp moom mooy fexe du bokk ci askan wi. fexe fexe ba du bokk ci ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy posé ñooy posé eh, maanaam candidature te loolu tey jii xam nga loolu yegg nañ ca. léegi nag ni ma loolu leere woon naññi nga xam nga man du ma waxantu parce que xam-xamu biir man daanaka du ma xam saa ni rek du wax waaye dama ciy teg xam-xamu biir ba noppi door a wax léegi nag loolu ni ma leere woon noonu la ma leere naññi ni billaahi wal quraanil xasim Macky Sall ak pexe mu mën a pexe maanaam du tee Ousmane Sonko bokk ci élection yi lenn kay moo fi mën a nekk maanaam naka wóor ni moom maanaam Ousmane Sonko ñàkk a bokk ci élection yi maanaam jégg ciy néew rek. loolu dañuy gis nga Abdourahmane jégg ci néew rek incha allahu taala waaye ci réew mi yu nekk Ousmane Sonko ku ko tee mën a bokk ci élection. Mm. wallahi wal quraan al xasim mooy juróom ju doogul ci élection 2024 yi ñu jëm incha allahu taala mm-hmm. daanaka du ma ci sawar sax di wax dama ci wax ci samay jataay yu baree baree baree baree baree. du ma ci sawar sax di wax waaye gis nga euh, président Macky Sall astaghfirullah sax Macky Sall maa ngi koy ñaax te moo dellu si waat xelam te doole ragalaat yàlla ci askan wi ko yàlla jiital ndax dafa mel ni xamul dëgg dëgg responsabilité bi ko yàlla jox te moom dafa jàpp ni maanaam yàlla bi mu koy jox daraja yi xanaa da koo jox ngir ab xam-xam wala ngir ak juddu te wallaahi bu dee ngir xam-xam ñu ko ko ëpp fuufang fi bu dee ak juddu ñu ko ko ëpp fuufang fi waaye dafa soob yàlla rek maanaam mu jox ko mu jox ko nguur gi moom nag dafa jàpp nii dama yaakaar ni dafa gën nit ñi ak judd wala déet te damay faral di wax ni réew mi réew mi di Sénégal bu doon réewum royaume wallaahi Macky Sall ci askan wa gën a suufee lay bokk. kon nag kon maa ngi koy xamal ni ko ëllëg du añ du reer waaye mat naa sedd de mat naa sedd bu baax. maa ngi koy dawal leen de li yàlla borom bi subhaanahu wa taala di wax ci suratul xaq di wax ni boo ëllëgee yomal xiyaam di nga gis koo xam ne day yuuxu ca kaw naan maa aghnaa anni maaliya halaka anni sultaaniya maanaam ndombal tànk li ma yàlla joxoon ci àdduna moom a alak nga gis kii naan alal ji ma yàlla joxoon ci àdduna moom a alak donte ne lim yor ci alal lu ci baree bare sunu alal la waaye nag boo ëllëgee li ma yéene sama bopp laa ko yéene maa koy wax na ragalaat yàlla ci daraja ji ko yàlla jox balaa muy yegg foofa di rëccu te boobaa rëccu dafa wecc rëcc rek moo fa des te bu boobaa kat suñu borom danaan xuduuhu fa xulluuhu sumal jahima salluuhu jël leen ko jàpp leen ko ngeen sànni sawara mu mel ni buñ ko sañee wax ñi xëy na ñoom it euh, sañ nanoo wax ñoom it euh, président di dégg ñoom ñu mel ni dégg buñ kenn mu wax ca kaw biral ko ñu ko waaw xam nga fi mu ne daanaka fii seytaane toll dëgg gi dafa leer naññ naññ naññ naññ naññ Abdourahman maanaam nit ki kay dafay xool digganteem ak boroom mu wax te yàlla rek tax wax fi dëgg gi féete ah wala nag mu daal di noppi rek ànd ca safaan ba waaye fii fii fii réew mi toll moom dëgg moom kenn naatable kenn naatable ko fii ci réew mi daanaka day mel ni koo xamee ne da nga cee noppi rek yaa ngi mel ni li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne assaakitu xanil xaq seytaanul axras yaa ngi mel ni ki gis dëgg ba noppi noppi ca yaa seytaane si lu yéen a yam te maa ngi seeral yàlla ni képp koo xamante ne sin yaa ngi ànd ak ci bëgg-bëgg bii président Macky Sall nar a amee na la wóor ni yaa ngi mel ni ñu àndoon ak na te ñooñu fan yu mujj mooy fa axraxnaahu wa man maahu jamihan yàlla dafa labal na labal mboolem ñamu àndanoon waaw loolu daal foofu daal laa ko teg wax dëgg yàlla ci ci mbir moom nga xam ne téere bi euh, kilifa yi ñoom ñu ngi ko ñu ngi ko yëy toog ci euh, daanaka waxoon ci li nga xamante ne bii kenn mën na koo dégg waaye nag bu ñu xoolee ci jamono ji nga xamante ne bii ñu ngi wax naan candidat candidature Ousmane Sonko du jàll ak dina jàll gis nañ ci ay euh, vidéo yoo xam ne def nga ko ci ñëpp di ko doon ko bàyyi xel waaye kenn ci ay àndaale moom it di Ousmane Sonko di Barthélémy Dias ñu gis ne moom it dafa xëy xëy reculé wu génn. daal di yëkki ay kàddu jëmale ci ki xamante ni bii moo di Ousmane Sonko euh, noo gisee Abdourahmane xanaa ñi xamut waaye man man jëmmi Ousmane ci jëmmam leeral naa ko ni ko maanaam bàyyil xel bu baax a baax a baax ñii ngay àndal booba yow li ñuy wax yow askan wi taxawagut booba nag lu mel nii laa gisoon kon man doonu loo xamante ne si mbetteel la ci man dama cee kay sant yàlla ndax doonu lu ma bett parce que tey jii. maam bàyyi gi bàyyi gi bàyyi dama cee sant yàlla bu baax a baax. xam nga man toujours maanaam bu fekkante noonu comme teraangee adduna man yàlla teral na ma ba noppi. yàlla dénk na ma xam-xam yoo xam ne sama lal bu ma ci toogoon. billaahi te duma ko wàcc kenn mënumaatee tedd parce que yàlla teral na ma waaye bu may xeex ngir sama ëllëgu réew. sunuy sëtaat yi ñëw xam ni ñin fi bàyyi ñin ñin ñi leen fi fekkoon kat maanaam ñi leen ñi leen jiitu liggéeyal nañ leen ma cee bëgg li tax mooy moo gënoon mu doon ab workat dama dema dem ba occupé yenn fonction yu mag yi ñuy door a xam ni kii ab workat la te kat fii jamono toll ba ñëpp am yaakaar ci Ousmane Sonko ci ak njulliteem ak baaxam ak li yàlla def ci moom ba tax nit ñëpp sopp ko nit ñi ci biir sopp gi dañoo bëgg gëneen ëllëgu Sénégal dañoo sopp dañoo sonn daanaka depuis indépendance ba tey ci benn système boo xamante ne si daanaka si ay neuf rek ci ñett ñu fi toog ñëpp. léegi nag système boobu la jëmmin doomu aadama yëpp sonn surtout sénégalais yëpp sonn moo tax daanaka ñëpp bëgg Ousmane Sonko ngir yàlla ak yaakaar ne réew mi mën na soppi ko ci moom. waaye gis nga waru Barthélémy Dias bu yaakaar ni Barthélémy bu yaakaar ni war gi mu war Ousmane Sonko maanaam dana wàññi dara Ousmane Sonko wallahi moo ngi nax boppam maanaam du ci wàññi 15 gis nga Ousmane yàlla ci jëmmam moo ànd ak moom ndax dama koy faral di wax lu baree bare ndax koo xam ne boo xaada doon turam tur maanaam lim bi mu lay jox daanaka moo ngi doon mille 1177 boole jeg itam tur yàlla wi mbiram dëppul dëgg-dëgg mooy asaaxiru maanaam turam lim bi mu lay jox moom la la asaaxiru di jox taw yoo xam doon ngelaw comme dalay lay wër ni kii lim maanaam ni mu mel yàlla moom moo ko defal boppam. yàlla ko yàlla ko defal boppam. moo tax daal wax dëgg yàlla mbiri Barthélemy warkat yooyu moom bëgguma sax di ci sori moom daal ñoo ngi sant yàlla bu baax mi ñu teel a feeñalal warkat ni ab warkat la. mu mel ne mu mel ni ñoom ñaar ci seen biir ginnaaw bi nga xamee Ousmane Sonko génn na moom it wax ne am na ñoo xam ne daan nañ ko enregistré di yóbbul président xëy na. am na ñoo xam moom it mu génn démb di wax daan ne moom li nga xamante ni bi jëfal na ko euh, Ousmane Sonko kenn jëfalut ko. waaw Abdourahmane wax dëgg yàlla Ousmane mën naa ni nit la ku yew dafay fekk rek yàlla bu la booleeg mbooloo da xam bàyyi ca waaye li wóor te wóor boo xoolee ak bàyyi xel gi ma ko bàyyiloo xel loolu ak ñeneen ñu dun man xam naa ne bàyyi woon na ko xel te wax na ko itam ci biir yi waxam lu ci baree bari dafay xam rek bàyyi ca. waaye daanaka daal sama xol tëxul mu neex ci jamono yii ñu toll ci réew mi waaye li wérte woo daal moom moo di képp koo xamante ne si boo waxee ñu dégg la maa ngi lay ñaan nga jug wax Macky Sall dëgg maa ngi seeral yàlla nii bokk naa ci ñi nga xam xam nga yàlla may na bu wóor xam-xamu biir xam-xamu biir bu wër waaye ku ama am yaakaar ni nguur gi boo wëtuwut ci roxoy militaire lay mujje bindal mhm. bindal loolu denc. billaahi wal quraanil xasim Macky Sall deret ju baree bare nam naa tuur fii Sénégal te moo ngi nar a amee ci sabab bu bëgg-bëgg président Macky Sall te moo di troisième mandat. troisième mandat maam bu amee rek. ñu bëri dinañ ci dinañ ci. nanu jàll ci wàll bi ma yàlla may Abdourahmane waaw boo mu mel ni Ngor euh, moom it euh, ku wax lee da nga waxaale lii Ngor moom it am na ay jafe-jafe yoo xamante ne bii maa ngi fa ba kenn jot caa ñàkk bakkanam bu ko defee buñ paree doon ci waaw loolu mooy lépp rek loolu mooy li ñu doon waxtaan rek xam nga réew mi boo xoolee du ngor dong ak yeneen i barab yu baree baree bari loola fa xew gouvernement maanaam lu tuute rek mu di ko xëpp mu di ko xëccoo maanaam aw askanam xam nga ne kon kooku amul kenn benn yërmande ba àgg bay tiile ay bal réel ay bal réel yoo xamante ne si yow ñii seen borom ñii seen alal rek ndeysaan la ñuy sàmm nga àgg di leen tiile maanaam ay bal réel maanaam ngir waxuma la ki faatu sax waaye ñi ci gaañu nga xam ne seen i cër nopp naa baaxat ci àdduna kenn xamul nu toll ah waaye loolu day tegtale nguur gi jeex rek dafay tegtale nguur gi jeex rek billaahi makisal Sall ah yàlla baax na borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ne xul siiroo fil ardi fansiroo kayfa kaana aqibatul mufsidina dox leen ci suuf ngeen xool yàqkat yi ni nu mujje maanaam yàqkat yi ak mukassibine yi ni nu mujje waaye maa ngi koy ragalal loolu mu jugu ñaaw ndax da koo da koo da koo ji da koo da ji doom aadama yi. kon euh, ginnaaw bi nga xamante ni génn nañ ci wàllum actualité politique ak li nga xamante ni la réew mi di doxee ci euh, Sénégal euh, li nga xamante ni bi nag yàlla may na la ci sëñ Abo ku tudd sëñ Abo tudd sëñ Massamba Diop Samb tudd alxuraan tudd Serigne Touba ndaxte mënut a ñàkk ñu bëggoon a ñëw nga baaxee ci li nga xamante ni bi ma xam-xam boobu la yàlla may ba tax tey ji nga mën fii wax dëgg yàlla yàlla xam-xam yi mu ma sédd daanaka mën naa ne euh, boo gisee sax sama toogaay fii dafa doon xam-xam yoo xam ne dama jàpp ne responsabilité la boo xam ne bu ma ci dimbaliwul ku ma ci tane boo léegi dinaa ko layoog saa borom subhaanahu wa taala waaye bu dee ci wàllu dundee yooyu moom yaakaar naa leneen waneen wàll lay gën di dundee maanaam waaye sama toogaay fii moom xam-xam bi ma yàlla sédd te doomu aadama yu baree bari nekk ci gàllankoor yoo xam ne yàlla may na ma xam-xam yoo xam ne mën naa leen caa taxawu loolu rek moom moo waral ma sama jataay fii te xam ne bu ma ko defut responsabilité la boo xam bu ëllëgee dina ko layoog yàlla ndax waxi foofu innahum mas'uluun borom bi nee na bu ëllëgee da nga gis ñoo xamante ne si ni dañuy pare ba yaakaar ne dañuy dugg ci àjjana ma dablu leen. ni leen taxaw leen ma laaj leen responsabilité yi ma leen joxoon ci àdduna responsabilité yooyu nag bu dee ci sama wàll mooy xam-xam bi ma yàlla jox boo xam mu doon xam ne jafe-jafe bu doomu aadama mën a nekk ci kaw suuf billaahi wal quraanil xasim bu ko yàlla defalee taw feexe mu jokkoog man dana tàggoog jafe-jafe yooyu jafe-jafe yooyu yëpp nag maa koy jaare ci bunt bi ñuy wax seet li may seeta nag man gisaanewuma pettaawuma man ci turu yàlla laay seete doomu aadama fu mu mën a nekk ci àdduna na fata teng loxoom bi yónnee ma ko ni ma sëriñ aboo damaa bëgg nga seetal ma sama seet nag mayu ma ko kenn parce que sama xam-xam dama koo tërbiyewu ku ma fayit duma la seetal na leer naa ñi damaa jàng alquranu karim ba wattu ko bind ñaari kaamin yaakaar ni nopp naa ci njàng nekk te tàmbaleegu ma fukki at ak ñaar gëstu naa ko xam-xam kon sama seet dama cee sonn dama ko dama tërbiwu nit yàlla ba mu jox ma ko ku ma fayu du ma la seetal nit ki nag fu mu mën a nekk ci àdduna na fa teg loxoom bi yónnee ma ni ma sëriñ Abo damaa bëgg nga seetal ma wallahi bu ma ko seetalee dina xam ni yàlla borom bi subhanahu wa taala maye na ci biir seet googu Abdourahman ci laay xamee ban yoon laay war a jaar ngir ñaanal nit ki mbaa xam nga ni doomu aadama yëpp du nu bind jox leen ñu takk mooy defar seen mbir ci misaal nit ñi yàlla daf leen a bind ñeent tabixa yoo xam ne benn bokk ceeg sa morom ñii seen tabixa dafay suuf ñii seen tabixa di ngelaw ñii seen tabixa di sawara ñii seen tabixa di ndox te ñeenti tabixa yooyu kenn bokk ci ak sa morom yoon wu ni jaar ngir defar say mbir ci misaal ki nga xamante ni si ne tabixaam maanaam tabixaam dafay sawara ñu bari rawxaan la ñuy wax waaye rawaan loolu tudd rawxaan tabixa la tudd ñi xamul rek ñoo koy wax waaw waa rawxaan waneen wàll la ci wàllu xaatim leen koy jëfandikoo ak yeneen wàll léegi koo xam tabixam dafa doon sawara ñëw ci yow di sàkku ñaan nga bind ñaan nga gën a baax wala ndomba nga gën a baax jox ko wallaahi bu doon sangoo ñaan nga sax day gën a dellu ginnaaw moo tax nga gis ñu mën a ñu baree bari wax la man laa wax ne la man de sëñ bi dem naa fu nekk jox nañ ma lu nekk waaye taxul ma gis benn njariñ sama bopp léeg-léeg itam ci ñeenti tabixa yooyu am na ci tabixa boo xamante ne sin ku ko amee yow soo xamee sa sarax rek jërul sax ngay ñaan lu sa mbir mën naa baax lu mel ni tabixa suuf ba tey itam am na ci koo xam ne tabixa boo xam ne xalwatu mooy defar mbiram ak ismulaay asam waaye man daal mm, ci tënk rek moo di nit ki ak jafe-jafe yu mën a am ci wàlluy kéet ci gàllankoor ci boppam ak yaakaar yu tas ak rab ak pexe noonu ak cat ak lu mu mën a doon na ne ma sëriñ aboo damaa bëgg rek nga seetal ma. mu mel ne réew mi fi mu toll nii jafe-jafe yi nit ñi di jàmbat lu ëpp mooy wàllum sëy ñi danoo tële ñi néew kàttan ñi sëy ci waaw xam nga ci wàllu kàttan moom loolu ñaare li ma ciy def sax daanaka dama cay noppi di wax man maay koo xam ne du la jox sunguf duma la jox reen li ma lay jox innal quwata lillahi alquranu karim la aaya bi ñu wax innal quwata lillahi jamihan ak waye siddukum quwatan ila quwatikum moom laay binde ab lim bu bari su ma ko bindee su ma ko bindee ba noppi mbool ko ndawalu nag bu góor jox ko ki ko bëgg wallaahi bu ko jëfandikoo dina am kattan ba mel ni ku toll ci ñaar fukki atam ak juróom ba ba muy faatu dootu tàggoog ñoom ba ba muy faatu dootu tàggoog kattan googu incha allahu taala am na ku ma ciy nawlanteel ci wàllu woowu bu dee ci wàllu itam nopp dëgg la nag wax dëgg yàlla bu njëkkoon daawuma noobal nit ki koo xam ne dëkkagu ko waaye dafa bari ñoo xam ne dañuy séq nit ci wàllu cofeel lekk seen xalal lépp fekk ci ak nax la moo tax ñaare eh, léegi ñaare képp koo xam ne yàlla def na nga nekk ak doomu aadama ba mu lekkal la lu baree bare ci sa wàllu alal te nga doon seenu ci moom ak cofeel te amuloo ko ci moom boo ma woowee insha allahu taala wala tax mu doon sa soxna waaye sa xel daa dalut ci moom ni tànkam mën nay wëlbatiku na la yàlla defal tawfeex nga jot ma maanaam nopp gi ma ciy def maanaam foo ko joxoñ dana fa jëm ba ilaa yawmi diin te dara du ko mën a dindi insha allahu taala waa xam nga man ñaare waxtu wu nekk dama am bëgguma nekk di publicité waaye baraana ay seepeek ba ci fu mel ni daay sel man samay ñaan fu nekk lay jaar loolu moom dafa am ay ndaw spécial yoo xamante ne si ni loolu lan may dimbalee ci wàll wi ndax yaakaar yi bari na fi waaye dafa am ay ndaw yoo xam ne spécial dama leen a jël ngir ñu may taxawu ci wàllu woowu waaye ñi nekk ci bitim réew itam nga may ma laabire leen dama leen di ñeewante lool léeg-léeg nga gis koo xamante ne si takk jari dañ koy toog mu nàbb sax ay bagaasam di daw may wax ñëpp ni yàlla dénk na ma ay xam-xam yoo xamante ne sii nii surtout bi may liggéey ci daru kaña xam nga kaña bu doon dox bëccëg nii du gis wallaahi bu ma ci liggéeyee li ma ciy liggéey ba jox ko doomu aadama bi ni ko am takkal billaahi wal quraanil aziim bu ko mën naa jaar ci takk tànk der te tànk der maanaam bi mën naa mën naa jaar ci suufu tànk takk takk der te du ko gis maanaam saa bu takkee loolu mm. pëlise jàpp ko na ñëwaat ne ma am sañ abo li ma joxoon ak nii ma yëkkatiwaat xaalisam jox ko wóor nga ko teg liggéey bu yéeme yéeme la boo xamante ne si doonul bu yomb nag man sama liggéey yombut na leer naa ñi mm. maa ngi ñaan itam képp ko am ci man yaakaar ba ba yëkkat sa téléphone woo ma mm. maanaam boo ma jotul itam nga bàyyil ma vocal waaye nag bul may karre karre loolu moom maa ngi koy ñaan ñëpp parce que yaakaar yi daf fee bari te lu waay gàtt gàttum xel nga xam ni yow rek amoo ci man yaakaar mm. léeg-léeg ndeysaan comme seet gi xam nga man seet mooy buntu lépp moom laay njëkkee ba noppi ndax alquranu karim def ne waatul biir na abwaabihaa lu nekk dee leen ko jaare ci buntam te jàpp naa ne yàqaree ni ki bu doon am néega seet mooy buntu bi ñu ko jaare da gis koo xam ne ndeysaan dalay seetloo yëkkati li muy teg sa loxo rek waaye diir bu gàtt rek mu daal lay kar kar yi nga xamante ne si ni maa ngi ñaan ku fa am yaakaar daal na rek am ak dal te xam ni ñaan yàlla andut ak yàkkamti yàkkamti moom baaxul ci dara waaye rawatina ci ñaan yàlla damay bëgg ku am fi man fii yaakaar ba di ma ñaanloo yàlla nga wakkiirlu ci yàlla mi may wakkiirlu man waaye itam nga jëfandikoo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ji mu waxoon ni fasbir kama sabar ulul hasmi waaye wala tastaajil wala tastaajil bul yàkkamti comme yàkkamti amul solo ci menn mbir loolu daal laay wax su ko defee nag xam naa comme tey jii euh, dama amoon yéen a dalal la sama kër sama génn bu njëkk mm-hmm. ndax ndeysaan sab tisaare liggéey bi te lépp du lu baax saan ma tax dama bëggoon boo ma ko mayee ma tënk foofu bu ko defee ba beneen yoon ma gën a yaatal waxtaan wi waaye daal maa ngi wax sama kàddu ca kaw di wax ni fépp fu waay mën a dem ñu jox la lu nekk ni la takkal sangul te taxul nga gis sa bopp dara laa taqnatu min rahmatillah bul naagu mukk ci yërmande yàlla nan la yàlla defal tawfeex nga jot ma yombu ma jot nag numéro yi affiché rek mooy numéro bi am na am mooy numéro yi am na whatsapp am na whatsapp itam boo ma woowee jotuloo ma bu la neexee nga bàyyil ma vocal ah yàlla de mayul ma man ma man li yëpp waaye yim ma séddeeku si ñëw képp ku ci sa cër nekk fas naa laa yéenee taxaw te gàllankoor yu doomu aadama bi mën a mën a ma ma a dund ak fu mu mën a nekk ci àdduna mm. yàlla may na ma xam-xam yoo xam man naa ko ca taxaw damay faral di wax ni maanaam nit ñi surtout ñii tukki mm. nan bàyyi xel ne am réew du dox jëmmi nit ki mooy dox nit na jug ci boppam ba noppi maanaam boppam bu bu bu doxee rek fu mu mën a nekk ci àdduna ay mbiram day ubbi ko waaye bopp jëmmam bu tëjoo fu ma bu nekkoon réew yi gën a baax itam ay mbiram day taxaw loolu ñuy jàkkaarloo man xam nañu ko mm. te lu dafa war a am sarax yu mu def ngir toxal ay rawxaanam waaye bu jekkee jekki jug noonu dem te deful yooyu bu demee sax boo wutuwut mën naa liggéey ba sonn te pour mu am lu doy waar lépp waaye man jàpp naa cat sax moo gën a kawe parce que liggéey dafay bu nekkee ci yaramu nit ki daf koy diisal yaramam ba mel ni lun sëf moo tax ñi may seetaan baraana lool ñu ñu ci liggéey jàpp da gis seen yaram diis ba duñ mën a def dara duñ xam luñ leen sëf loolu de feeñ ci liggéey te noonu la defoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax ñaare saar yi wàcc muy falaxe ak naas xësta bu gudd la waaw ci yahud bu ñu wax lu bay dumnul axsam moo ko njabar dafa gudd waaye yaram yonent bi sallallahu alayhi wa diis gann ba tax maanaam ñaari saar yooyu wàcc ngir dindil ko yonent bi waaye cat moom laa gën a ragal sax ci liggéey parce que cat nit mën na solu mbubb nit ni la sa mbubb mi dafa rafet rek maanaam mbubb moom saa boo ko solee rek cat jàpp la cat moom da lay gën a gàllankoor mm. te gis nga cat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne sulus xuburu ummati min alxasadi sama xeet wi maanaam ñi ëpp ñu faatu sama xeet wi sama xeet wi faatu boo leen xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi cat catal bët moo leen rey am na sax fu mu waxee ni aksaru man yamutu min ummati baxda qadaa illaahi wa qadarihi bil hayni aw bil xasadi maanaam ñu ëpp ñu faatu sama xeet wi gannaaw atte bi yàlla ak dogalam ñoo ngi faatoo ci sababu iñaan wala bët loolu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la moo tax euh, gis nga cat ku koy xeep da ngaa xamut baraana loolu nit koo xam ne ay mbiram yëpp day dox maanaam nit catu ko cat lu ndaw rek ay mujaara fa yàqu la lum teg loxo mu yàqu te du xam lan moo ko yàq loolu ñi may seetaan nga xam dañuy yàqule lu baree bari ci wàllu alal alal du taxaw seen seen seen loxo seen yaakaar di tas waxtu wu nekk nit da leen bëgg a dimbali sax du ko man parce que gàllankoor ci ñoom lay nekk loolu lu baree bari cat moo koy def ah nga may ma rek ma tëj foofu bu ko defee li may tëj rek moom moo di maa ngi dénk ñëpp ñu nekk ci wàllu wii nañu ragal yàlla te bàyyi xel seen digg ak seen borom ndax dafa bari ñu may woowee fu nekk naan ma sëñ kër kët jëflante naak seen diw jëflante naak seen diw waaye man li ma leen di wax leen rek la maanaam euh, bàyyi leen ak yàlla képp ko ci jàpp ni daf leen a nax naxu leen de seen bopp rek leen lay nax ndax ku nekk danga nga wéet ak sa borom dama leen di wax ne ku nekk da nga wéet ak sa borom ba yaakaar ne yow rek la bindoon wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati fardan moo tax damay faral di laabiré ni ñi nekk ci wàll wi di leen wax ni leen ngir yàlla ñi am ci ñoom yaakaar bu ñu lekk mukk seenu dërëng ci neen ndax borom bi nee na yéen ñi gëm yàlla laa taakulu amwaalakum baynakum bil li bu leen lekk alal seen diggante ci neen te lu ñuy wax doomu aadama itam rikk na doon yun man léeg-léeg nga gis koo xam day gën naan yàlla may na ma ci nangam ca lu ci bëree bëri yàlla mayu leen ci mm. léeg-léeg sa yaram day daw sax day daw day daw sax te borom bi def ni yéen ñi gëm yàlla li ma na maa la tafaluuna lan moo tax ngeen ngeen wax loo xam ne du ngeen ko def wala sax mënoo leen ko mm. moo tax loolu daal maa ngi leen ko bàyyi xel te ñu bàyyi xel bis boo xamante ne sin ma nga ca suñ kanam ku nekk nag lépp loo jëfoon rek da nga fa fekk ngeen gi fekk loolu bu ko nit ki dee bàyyi xel wallahi ku mu jëflanteel da ca bàyyi xel diggante ma borom subhanahu wa taala te loolu moom moo di wattaqu yawman turjaxoona fiihi ilallahi summa tuwafaa ak nafsin maa kasabahum laa yuzlamuun foofu nag laay tënkee di leen sant di ñaan yal na yàgg jataayu yal na yàlla def barke ci site bi ah wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu ala man ittabaa al huda dama daan tàggatoo yàlla na yàlla na jàmm yàlla ak yërmande yàlla ak barkeem yàlla nekk ci mboolem jullit waaye léegi bi ma xoolee Macky Sall aku doxalinam aku góor nu gouvernement bu bon léegi li moom li may tëjee dama naan wasalaamu alaa man ittabaa hudaa jàmm yàlla na nekk ci ñu jub te tey njub jërëjëf kon mbokk yi nga xam ne mbokk yi nga xam ne lu doon bàyyi xel ci Yatal kon ni ko waxe woon ci commencement bi ñu ngi doon dalal ki nga xamante ne bii moo di sëriñ Abo Diop di sët ci ki nga xamante ne mooy ma Massamba Diop Samb jàngee alxuraan jàng xam-xam ba yàlla may ko ci géej ci lool waaye yit am xam-xamu àddina it xàmmee ràññee taa nag tey nag ñu fekk ko fii ci Touba doon waxtaan ak moom ci actualité waaye waxtaan ak moom ci wàllum xam-xam moom Serigne Abo Diop mu indi ci leeral yu am solo yoo xamante ne bii nii faw xam na sunu njort kon Serigne Abo ñu ngi lay sant di la gërëm te di la ñaanal jàmm ak tawfeex comme ni nga ko waxee woon léegi rek euh, yal nañu yàlla defal tawfeex ban dajawaat ak jàmm bëggoon na laa laaj ci sondeel yi Macky Sall yeeg ñoom seen waaye nag dañ koy li euh, li wolof naan li xa li euh, dur si nag. dig daje dig daje incha allahu taala.